benn sorte jihaad la rek parce que Sénégal moom boo fi nekk di wax dëgg day mel ni dangay ngay jihaad parce que dëkk fen la quoi dëkk boo xam ne la fen moo fa gën a am doole gars yi fen la ñuy gën a consommer que dëgg waaw boo léegi rek da ngay nekk ci jihaad boo xam ne da ngay yanu kàddu allah subhanahu wa taala muy kàddu dëgg ngay xeex ak fenkat yi Sénégal dafa bu tey bu doon 17 million la am na nu mu dee dee dee benn 10 millions de duulkat 10 million de duulkat fen ci deret la nek ga ADN la quoi dañ mëna a fen mëna a fen day défendre fen ga yàgg ci fen waxna naa leen ko ah. ama man mom je droit au but lay def amul lu may ragal ci limay wax quoi waxna leen ne képp ku sa bàyyi fen sa yaay ba takk ko ba am fa doom ci ay fen boy bo bu ko yàlla dimbaloo kat lay doon te bu fekkee ay waxtaanu mag wala waxtaanu kilifa ñi wax dëgg tam danaan dañuy fenn dafa bëri ay jigéen yo xam ne ndeysaan ñoy ñew ci suuf dima jël ci suuf dima wax seen relation ak seen jëkkeer yi nga xamni dañ leena fenn ba tak leen fenn fenn fenn fenn ba am ak ñom doom bu leen fa gaare fenn ba mujjé jabar ja bayiko fa bu ga dem yoonam waaw bu ñuy bu ñu souvent ñu ñew envoyé ma moo laa mën de sama sey bi ni ni sama jëkkër daf ma fenn daf ma fenn man ba amu leen doom mu ne ñaanal yalla wutalal ay sa doom bi wutal ko ay ñaan waaw parce que baayam ndax la fen ci ay fen la la la la la takkee ci ay fen la jëndee goro gi ci ay fen la géntee ci ay fen la la tëddee ci ay fen la amee sa doom jooju noonu donc boo deful naa doom jooju boo ko seetaanee te wutaloo ko ay ñaan bu màggee it fekk benn Mollah Morgun buy wax dëgg tamit day ñëw na ko bàyyil fen donc souvent boo leen gisee nit yi di wax dëgg am ñu ñëw naan bàyyil fen seen bàyyi ñoo naxoon seen yaay ci ay fen ñu màggee ci ay fen ñu ñu ñu

buñ koy mujj ba muy mujjee France SDF 100 pour cent di fanaan fii tey suba mu fanaan fee ginnaaw suba du xam sax fan lay fanaan di daalu tey ay fan ay fan la Gabriel Kane ñëwee ñëw Sénégal vacances da toog ji sàcc sàcc doom ji ñëw indaale toog ci télé yi di wax ni waaw féminisme waaw no arrêté non non de waxe ñu ne non ndeysaan ndeysaan ndaanaan gaa ngi nii nag féministe baa ngi nii muy wëndaale ñan ñoo ko may promotion mais seen télé yi ay téléphone 4, ngeen yore ay journaliste déjà ngeen am pas journaliste ay journaliste am ay téléphone kat Gabriel Kane toog tegalee commencer commencé làkki français oui c'est-à-dire il faut respecter la la féminine parce que la jante féminine il faut la respecter parce que c'est c'est c'est c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de force <laughs> dof yi commencé suñ <laughs> seen il trente deux ans yi <laughs> ñaan non féministe la qui xamul sax le féminisme Gabriel Kane musul œuvrer ci féminisme toute sa vie racontez nañ sa vie musul xam féminisme musul œuvrer ci féminisme musul lire livre bibliothèque dama livre ci bi eh, oh, oh, oh. barki nga quand tu m'as invité dans mon bureau quand je t'ai invité dans mon bureau ay laa ilaha illallah dëkkub xaj kooku ba Gabriel Kane dem na fa ba SDF France ba am na bureau su Sénégal hmm? ñu ne ñu ne Gabriel Kane day dawal benn benn oto boo xam ni gars ay ay million lay jaar <laughs> ah oui ku am ful la Sénégal dëkkub xaj la dëkk bo xamni ni ci dara ci ay fenn la taxawé ci ay fenn lañ ci dañ ko tabax ci ay fenn nit di dund mag di fenn xalé di fenn goor di fenn digeen di fenn bo fa ñëwé ak sa say fenn da ngay am dara boo ñëwé dëgg nak do am tus waaw jii je te conseille bul dem Sénégal naan da fa yobbu dëgg yobbu fay fenn yu toy xap kap togal ci télé yi di fenn plateau yi di fenn mbedd mi di fenn bop koñ yi di fenn di fenn bo duggé ci taxi del fenn del fenn rek dañ bo léegi gars yi jël la nag eh, kii kii kii élément moteur la ci dispositif bi dispositif bu fen yi kii élément moteur la dañ ko ci jël léegi nga commencé au non de jël laa lox ngay dawal oto yu tooy xapp laa lox ay x6 x8 sax dañ koy dawal xoolal am sa chauffeur dóor sa kos karawaat ci ay fen ah, da commencé tabax kër ci ay fen ah, ci ay fen rek <laughs> gis ngeen fii Californie bërki dem wax na yow doo ñibbi mu naan mu naan non dama nekk ci tabax <laughs> dama nekk ci tabax ci ay fen lepp ci ay fan dama nek di tabax ngeen gis eh, Françoise Hélène gay ñëw naan la man bu may bu may liggéey la tabax étage ma ko ana kayit bi ba légui mënul génné kayit bi lo xamni depuis avril ba légui mang ko koy laaj déggu mané la fan moy dox Sénégal deug du dox Sénégal deug da ngay doon ennemi ñepp ñepp lay bañ ñepp lay seexlu ñepp lay bëgg lek ñepp lay bëgg a mariner yéey la mais fen mo may lolu Gabriel kan aji Sarr fen moo ko indi fii mu toog fii mu toog nii aji Sarr Gabriel kan euh, euh, kii lu mu tudd Hélène Gaye fen waa am na kër ak fen moo ko toog loo foofu noonu ñëpp ñëpp Californie fen ay fen ay fen lañ ko naxee lañ ko indee ci ay fen ñëwal président Macky Sall dafa bëgg nga ñëw jàppale ko ñëwal ci ay fen lañ indee waa ji ba léegi mu ngi fen mi ngi toog Sénégal tam di fen encore naan ay maa ngi tabax non man mënuma bouger ndax maa ngi fen seen waa kër nekk tabaxul birig sax amu ko seen waa kër bu ñu génnee problème bu mu am la seen waa kër génnee ne Californie ñu ne Californie dafa toog ne day tabax ñu ne déedéet du dëgg Californie ñoom ñoo ko fi indi bàyyi ko fi ci ay fen mu toog ci ay fen eggali ay fenam moom ci boppam dolli ci ay fen fen plus fen égal fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen mu koy tabax damay tabax tabaxu tus dammitu birig amu ko duur rek la ñuy def te fen rek partout ay c'est que fen yi mo Sénégalais yi màggee ci ay fen judd ci fen gars yar leen ci fen nàmpal leen ci ay fen fen rek moo tax da leen jafe ñu gis kenn ku dëggu <laughs> da leen di sonal gis ku dëggu nii da leen di sonal fu ne la ñuy jéem a dem pour loqati ay ay mbir fu ne la ñuy jéem a dem pour indi pour wax ne kii day fen comme ñun c'est pas parce que daf leen bëgg a wane day fen dañ lay bëgg a indi pour wane ne kii day fen comme ñun ñun ay fenkat lañ ñoom ñun nangu ni ñoom ay fenkat lañ mais dañuy wuti yeneen dañuy wut dañ lay jëmmal indil ay fen pour ne xool leen kii day fen comme ñun benn feebar ñoom ñëpp ñoo nuroo feebar dafa ñu ko pour yàqal la dañ bëgg a wane ni ñoom picc bu lakk ci taat day bëgg morom ñoom tamit comme yow nit da ngay woote dëgg te ñoom fenkat lañ ñu reconnaître nañ ko léegi il faut ñu indil la luy wane ni yow fenkat nga loolu moo tax ci ay fen ñu dem ba dem jël euh, ki nga xam ni moom mooy euh, euh, seen waa ji nekk Walfadjri télé ba dem li nga xam ne wax na ko depuis début l'histoire ñu indiwaat ko léegi parce que ñoom kooku da leen di yàq seen fen yi di leen wan ay fenkat ngeen loolu léegi ñu bëgg a dem gëmloo gars yi que même kooku sax fenkat la ñu dem jëli histoire boo xam ni depuis jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la depuis jamonoy sahaaba yi indil ko ko tey sëñ Baara Baara Baara sëriñ Baara ne day fen lépp rek gis ngeen fen yi fu nekk nii comme ni ñu defee baara moomu sëñ baara moomu noonu la ñuy wëree man tamit pour wane ni noo nee na day il faut indi indil ni gars yi que Mollah Morgun fenkat la comme ñun fenkat la comme ñun fii ñëpp a fen ñëpp ñëpp fenkat lañ waaw kii moo dàq fen kii moo dàq fen xool leen baara kii moo dàq fen dem jël histoire boo xam ni ci début de l'histoire mais loo gis noonu lay doxee ba yàlla Cheikh Baara ok dañu bëgg woon ni Cheikh Baara day fen te Cheikh Baara fenul Cheikh Baara fenul histoire yàlla sax kaa la ñuy delloo ko ci yàlla ndem fenkat gëmuñu yàlla lañuy sàkketoo yàlla Cheikh Baara ok ok mu yàlla dañ dem ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bu ko yàlla yabalee dafa am ñoo xam dafa ñëw rek ne salaamaaleykum ñu nangul ko yàlla ba mu jël Muhammad sallallahu alayhi wasallam yebal ko Màkka mu juddoo fa ba am 40 ans mu dugal prophétie si moom prophétie Muhammad yeewu ñëw ne leen ah man de prophète laa yàlla wàccal na ma prophétie ci man gars yi tourné ñenn ñi ne nii <laughs> bul ñu fortoo waaye yow koo yab <laughs> yow yow nga juddoo fii sa sa baay di kii sa yaay di kii nga juddoo fii <laughs> naan yow yow yow yow yow dama yow ay posa fii Mouhamed ni nii ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci ñeneen ñi ne man de prophète laa rek ñoo est ce que jóg taxaw gëm ko mu demaat ci ñeneen ñi man prophète laa gaa yi di di werante di naatable donc ñett ñi ñoo am baat saa yu jibee dina am ñetti xeetu doomu aadama yuy jóg dafa am ñoo xam ne dañ koy nangu am ñu ko dul nangu am ñoo xam ni dañ ci werante donc ba ñu ñëwee ne Ousmane Sonko noonu la amee ay nit yu nangu ñëw ne deful am na ñoo xam depuis début bi dañ ne deful am ñoo xam ne ils sont restés man mi affaire Adji Sarr mosuma ci doon wax mosu mu ci doon wax sax dama doon waxee nii rek naan ah Adji Sarr laal ko da nokk fële <laughs> sonal le a noonu laa doon waxee je restais indifférent ci problème boobu